sëñ Ibrahima Tické Ndiaye Makka Tasaar ak mag ñu baree baree bare ba doon doo fi jóg sëñ Baba moomu fekk ji ne sëñ tubaa njaareem te sëñ Touba ko woolu te mosuñoo gisee ci ci ci Zahir kon nga xam ne kooku ca mag ña la bokk sëñ Touba yónnee ndaw ci moom ñu fekk ko woo ko mu wuy ji sëñ tubaa njaareem te ba muy wuy si sëñ tubaa njaareem boobu nekkul ab murit ab xaadir la te waajal na ba jekk bëgg a dem ziyaare ji ab sëriñam ba ndaw li dikkee dafa wàññi laabam wuj wuj sëñ tubaa njaareem bi mu ñëwee wuj sëñ tubaa njaareem la ca xew xista bi gudd na xaju fi waaye dañuy joxe exemple ci kooku ak ñeneen ñu mel ni moom ñu baree baree bari kon ñun ñun ay ay outils yi tubaa lañ ay jumtukaayu sëñ tubaa lañ ñun ñun moomuñu suñ jëm moomuñu suñ alal moomuñu suñ dara ndax mën nañ ne tubaa dañoo fekk ci biir seppi ñu jënduñu moom ndax làmbaay soo xoolee lañ doon dund bu njëkk kenn génnew leen ci sëñ tubaa kese moo leen ci génne te bu woon moom duñ ci jóg ba dee ba faaw kon ñun alali sëñ tubaa lañ ndax mag ñooñee doole ñeen amoon ba xeex ak tentoon ba daan ko doole sëñ tubaa lañ yoroon moo leen dooleel ba tey ak ñam àndal ñëpp daanu drapeau sëñ tubaa di folorete ci kaw boo duggee làmbaay xam ne fii sëñ tubaa defar na ko tund làmbaay gépp ba fa duggee xam defar na fii kon ñun nañ leen góorgóorlu gën a way deng ci liggéey Serigne Touba bii lépp lu yëkkati ci tundu làmbaay mu jëm ci liggéey Serigne Touba nañu jaral lu nekk seytaane nag du mos a tekki ngembam du mos a bàyyi lu ne lay dugal sam xel boo toppee daayira yi da ngay tardeek loo am joxe kook day wax pexem dong la bëgg mu jub joxe te taxul ñu ñàkk li ñuy jox sëriñ bi taxul ñu ñàkk wallaayal azim taxul ñu ñàkk barki démb sëñ ndongo wax na ko fii murit lu mu jaay nda joxe ko sëñ Tuubaa rekk tax balaa yàgg tuuti mu gis njëriñ li kon nañ gën a góorgóorlu bu baax ci suñ poos yi te xam ne li ci ne sëñ Tuubaa ko ciy def ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax ñoo ngi jàllale néeg bi nga xam ne dañ koo jël fii ci Pikine ngir matériel bu daara ji am di ko fa def weer wi deyaat na 15000 lañ ciy fay 15000 lañ ciy fay sëñ Ibrahima jenn mi lañ koy jox weer wu dee kon ku ko jekku tey loo am jox ku ko jekkuwut aussi boo fi jógee soo amee 1000 francs nga wéef ko soo amee téeméer nga wéef ko 15000 moom yaakaar naa wut a jaaxal téeméeri nit waaye nag ci kaw kenn ku nekk jàpp ne man damaa war a joxe boo jàppee ne man damaa war a joxe rek sa morom jàpp ko du jafe waaye boo nee gars yi dañ ko joxe sa morom wax ko ku koy joxe te loolu moo gën a bari ci mbooloo yi nag kon nañuy bàyyi xel bu baax point yi ñuy joxe fii nañ ci bàyyi xel dollu yi bañ ko daree laaj fii ak léegi mu ngi bëgg a yàgg sañoo mat na ci dëkk naa ko jox kàddu ñu ngir ñu bañ a guddal kon mën nañoo yem foofu bu ko defee sëñ Omar. kon lam leen poos yi loolu mooy wax ci. jërëjëf jërëjëf sëñ Omar bisimilah. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey